suñu teewaay tey fii nag ñu ñëw teew fii ci turu suñu kilifa yi ñu jox ndigal ñu taxaw liggéey bi euh, di sant suñu Abdou Lahad mi nga xam ne mooy jëriñ yi xam ne moom bu waxee rek daanaka mooy sama kàddu mooy lépp moo ko mu laa ko kon daaka jërëmi sàddi kàddu xanaa murid daaxir rek waaye di sant suñu doom ji muy Cheikh Amadou Mourtada ci liggéey bu rafet bi nga xam ne dénk nañ ko te taxaw ko ànd ko waatu waaj kanam ñëpp man nag tey sama xol fees ba xaw maa wax lu may sotti ndax jëf ji dafa rëy ci man lool te sëñ Tuubaa rek tax ngeen jëf ko waaye damay ñaan sëñ Tuubaa yow mi xam ne wanajini yaa man taala yaa majid min sharri jinnil maa shaytaanil marid wa sharri sil qurbi wa sharri nayi wal arri wal bardi wa sharril mayi وشوي الدنيا wa أبد وتير القلب وشعير الجسد وأملي الخيام في الليالي والزوم في النار بالإكمال jida rëy ci man lool rëy la lool ndax dimbali ko néew doole fi mu toog fi ko lislaam teg ak fi ko sëñ Tuubaa tegoon te dëkk bii bi ko sëñ Tuubaa sanc dimbali ni ñekk tax mu sanc ko yaa maalikal mulki yaa man jàll an xaw wax kenn fekk ko ci woon kon irham jami waraa kenn ku ne ci ñun war nga jàpp ab car ci loola yëkkati ko mu bañ laal suuf te yi jëmee waral lii bokk na ci rek lii tax nit ñi gàddaay seen maam yi seen baay yi fekk sëriñ bi kon waa Touba ci kanam bokki taalibe yi yi ñëpp bu ngeen jógee jël ju rëy ju ju ju ju ju am solo ji ngeen def te jëmi sëriñ bi rek tax ngeen def ko ñi gàddaay seen i bokk fekk sëriñ Touba ngeen ngeen dimbalee leen ko sëriñ Touba rek am seen pay yàlla ma leen fayal. mën nañu wax ne Touba ci kanam képp ko xam ne bokk ci lépp lu ma sëriñ Touba nar a jox na ko jox ba noppi loo ci am day na kon sëñ maa ngi sant baax di gërëm. loolu rek doy kon nag bu loolu amee mu ngi dox ba jamono ak si fii Touba kanam taxaw di liggéeyu sëriñ Touba yàlla defal nu ci tawfeex jëwriñ ju mat jëwriñ ji ci sunu wet suñu ébibu doon suñu jëwriñ ne ci kanam nu koy sant yàlla bu baax di ko sant sëñ Touba ndax. bëgg a dem yomb na waaye gis koo àndal mu ne ci sa kanam te man laa yóbbu dafa jafe te ñun am nañ ko kon nañ sant yàlla sant sëñ Tuubaa ndax jëf yi système léegi bii kat dooy na sëkk la ci ne moom dara dafa nekk ci moom lu dul sëñ Tuubaa loolu rek mooy loolu rek mooy feeñ te lu lu xol ndab la ndab lu rembatee dana tuur dafa fees xolam nag dara da cee niwul lu dul sëñ moo waral jëf ji moo waral li fi xew ñu ngi koy sant bu baax te di ko ñaanal yàlla na ko sama doom may fan bu gudd bu ndax ak yàggam fi bu amee wóor nañu li sañ bëgg dana ko am kon yàlla na fi yàgg te ne yàgg ci gannaaw di sant ba beewal na ak cant soxna yi ndax soxna yi ay jàmbaar lañ lool ci Touba ci kanam gépp rawati nañu wax social bi di wax sëñ Mourtala kon yàgg waa social gépp daal sëñ bi neen xolam sedd na xolub waa Touba ci kanam sedd na yàlla na xolub sëñ Touba sedd ci yéen te sedd ci ñun ñëpp ci bàkki sëñ Touba jërë ngeen jëf wacan kalaami rasidan wa mursida wa fikratin nawir wa وبي ينفع الورى حيالي منخزا كل زائل مديني ولتبصر بي اليتامى دواما انسيهم بي اباهم كل هيني asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi siyaare suñu kilifa yi nga xam ne moom la ñu dendal yëpp tey tub bu baax ci eh, lii nga xam ne moom la sëriñ bi def أمد هواي قليل المنام يا خالقي يا كامل الصفات لك استكيت كثرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي ñu ngi sant bu baax a baax ndax gis nañ ne e, jiitalu leen ñu rek taxaw bàyyee ñu yëf waaye waxtu nekk yéen a ngi seen wét ci ay xalaat ak ay jëf ak lépp loo xam ne day sottal mbir mi kon ñu ngi leen di sant bu baax di sant waa commission sociale bi ma ko seqal ndax li sëñ bi wax rek daanaka man mii tamit mën naa wax loolu euh, bu dee coono bi ñoom ñii ñoo koy gàlloo waxtu nekk ñooy nekk fii ñooy ñooy ñooy ñooy yendu bagage ñooy def lépp bu ñu demee nag ba ndam jot nag ñu bàyyee ma ndam li kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci sant goo xam ne nii euh, lot nañ ci tudd ko ci sunu làmmi waaye sori na lool ci sunu xol jëf ji nga xam ne moo ñu fi dajale nag dundal sunna si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ak jaamu yàlla ndax ñu bëri xam nañ ne weer wi ñu nekk bokk na ci asxurul xurum bokk na ci weer yi nga xam ne ni suñu borom da leen a wormaal dëkk bi sëriñ bi ko sanc mu Cheikhul Xadim radiyallahu anhu bokkoon ci tax mu sanc ko muy dundal sunna si yonante bi sallallahu alayhi wa moo waral nag Touba ci kanam jaare ko ci commission bii di ñu ne nañ jéem a jàppale suñu bokki taalibe yi ndax lépp li ñuy def rek ci sunna la teg ba ci yëre yi nga xam ne moom la ñuy dajale ndax ku nekk xam na ne bis bi liñ ci gën a sopp mooy nit ki sol yëre ya gën a rafet ci ay yëreem wala yëre ya gën a yees ci ay yëreem moo waral nag comme ñëpp mënuñu ko ñu woo mbokki taalibe yëpp ñëpp jàpp ci ba fi toll nii li to li li ñu fi dajale ci ay yére yoo xam ne nii ñaw nañ ko ba paqueté ko ba mucc ayib toll na ci treise mille cent 13 139 pièces mbuus yi nga xam ne moom lañ ko séddalee ndax léeg nga dem ci kër goo xam ne nii juróom benn nit ñoo fay nekk léeg nga dem kër goo xam ne fukki nit nekk mbuus yi dañ ko dañ koy calculer comme kër ga nam toll mbuus yëpp mu ngi toll ci deux mille trois cent cinquante li ñu fi dajale ci ay col yoo xam ne col yi soxna la te ñu mën koo euh, suturloo ndax dëkk bi tamit dañ bàyyi xel ci ne dëkkub diina la col gi nga fiy sol dafa war a jot waaye tamit sëñ bi dafa soññee ci ñuy muuru col yi mi ngi toll ci cent cent trois cent dix-sept saag yi nga xam ne moom la jigéen yi yor mi ngi toll ci dix-neuf mbaxana yi mi ngi toll ci huit yére jigéen yi mu ngi toll ci douze mille deux cent quarante six yére góor yi mi ngi toll ci trois cent quatre vingt deux yére xale yi mi ngi toll ci cinq cent onze dàll yi mi ngi toll ci cent quatre am na ci tiis yoo xam ne dañ ko indi woon ñu séddale ko suñu bokki tailleur yi nga xam ne ñoo ngi ci dëkk bi ngir ñu jàppale ñu ci ñu ñawal ñu ko ñu ngi ciy profité di sant association tailleur yi nekk ci dëkk bi yëpp ak mboolem koo xam ne jëloon na ci yére yi nga xam ne jot nañ ko fee indi nga xam ne ñoom ñaw nañ ko ba noppi am na yu des nag mu ngi toll ci cent pièces yi nga xam ne dañ koo ñëwagul nga xam ne ay tiisi la yoo xam ne ñëwagun ko nga xam ne képp ku ñuy jox loola mën a jàppale ci kër ga dañ ciy boole ab tiisi yëre yooyu mi ngi toll ci environ 300 am na ay darab tamit am na ay rideau am na ay cin am na ay madar am na ay eau am na ay ba sax ay indi am na fi ak ak ñoo xam ne ay takkaay dañ ko jox waale loolu nag lañuy boole képp koo xam ne ni ñi ngi lay jox ndimbal ñi ci ëpp dañ ciy boole waale loo xam ne nii bu la mënta jëndal am xar mi nga xam ne moom ngay jaamoo yàlla tamit dana ci sori li ñu jot a ci ay ndimbal yoo xam ne dana mën a sori xar mi mi ngi toll ci douze millions cinq cent mille moom moom la toll. waaye ñi ngi sant ñëpp di sant mboolem koo xam ne ni dugaloon nga ci saw ñaq moo xam yaa ngi ci réew mi moo xam ci région yi nga nekk moo xam tamit yaa ngi ci bitim réew ñi ngi sant waa diaspora ba bu baax a baax ndax ñoom tamit donte nekkuñu fi waaye ñaar yëpp lañ boole dajale nañ ay ay addiye yónnee ko muy koppar waaye dajale nañ tamit ay yëre yónnee ko kon ñu ngi leen di sant bu baax ci turu Touba Ca Kanam waaye turu commission sociale